auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci nuyoo bi sëñ Tuubaa Séex Mamadu Muntaxa di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko waaye di leen nuyu ci turu bu sa mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatu Xidma bi yor jumaay tuba ak mboolem kilifa yi nga xamante ne ñoo seq daayira Muxaddamatu Xidma te nekk ci jataay bi buñ ci sëñ Abdoul Ahad Bousso Moutalib mi secrétaire général ak sëñ Abdoul Ahad Bousso Muxtaar ak sëñ Abdoulaye Diop ak sëñ Assane Beng ak sëñ Abdoul Ahad Bousso ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu seeni tur ak mboolem kilifa yi ci des di leen siyaare bu baax ci weeru tedd wi ñu nekk di leen ndokkeel bu baax di ñaan yàlla sunu borom yàgguñu ko fekkeel te lépp luñ ci jaamu yàlla sunu borom nangu ko waaye di leen nuyu ci turu. mboolem ñi nga xamante ne ñi ngi bokk ci daayira bi ak fu ñu mën a bokk ci daayira bi ñu ngi leen nuyu seeni tur yéen ñi nga xam ne yéen teew ci jataay bi di ñu jóge Espagne ak ñi nga xam ñoo jóge itali ti teew fi teewal fi Europe teewal fi diaspora bi yëpp ci jataay bi ñu nekk di leen nuyu nag di siyaare di dalu nuyu bu baax ak ndokkeel Eh, sëriñ maam morom Cheikh Mamadou Mourtada mi nga xam ne yàlla sunu borom dogal na yaatalub daayira bi ci bitim réew mu liggéey ci liggéey bu rafet bu yaatoo yaato kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di ko ndokkeel bu baax a baax ñooy am jataay nag fii ci jumaay Touba nekk ci weeru koor gi yàlla dogal ñi ñu baaxoo àndal liggéey bi ñi nekk ci bitim réew ñenn ci ñoom teew ci jataay bi di fédération Espagne ak waa Italie yàlla dogal nag ñu ñëwoon fi andi woon fi seen i addiya ñu fédération Espagne. ci njiital sëriñ Mbacke njaay danañ yëkkati kàddu jox leen yëkkati jotal seen liggéey ki ñu njëkk jox kàddu mooy sëriñ Abdou Ndiaye bu ñu noppee ñu jox sëriñ Jili Diop. aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina bni wa ala alihi wa ashaabi wa xayri xadimi wa sallama taslima ixwat al iman wal irada ayal mushahiduna alkiram asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julli mbokki taabili ñoo di jiital ci nuyoo bi eh, xalifatul am li tax moo di Cheikh Mamadou Mountakha yàpp solo ko ci wér guddal ko fanam lool ak mboolem jabar Sëñ Tuubaa bépp ak mboolem julli yëpp di nuyoo bi di teg loxo la Sëñ Aafi bu si mi nga xam ne moo jiite liggéey bu mag bi ci pak bu mag bii mu jox mboolem ñi bokk ci dayre bi def liggéeyal ci dayre bi di ndokk julli yëpp nag it ci weeru koor wi nekk nga xam ne noo ngi ci ñaar fukki fan yi nga xam ne mooy rahma bi mooy maxfira bi sunu taatu jéggal suñu bakkaar bi ci topp mi ci bi mu ganu safara di sànni ay kàddu nag di ko wax ci turu mboolem ki jiite fédération islam bi muy Serigne Mbacké Ndiaye mu jot mboolem dayri nekk Espagne yëpp ci turam la ñuy wax noo ngi toog ak dayru Muxaddamatul Xidma di wax ne nee seenu léegi lépp loo xam ne jëm na Espagne lépp yegsi na ci ñoom kon nag soññ bi mooy lan mooy ñu ngi soññ mboolem taalibe bi nekk Espagne yëpp ñu ànd ak liggéey bii nga xam ne ni ko àndee gën ci lax saa gën góorgóorlu mboolem dër yëpp ànd lëkkaloo nekk benn te xam ne dayra ak de ak bi benn la benn liggéey ndax lépp liggéey sëñ Tuubaa la kon nañ ci gën a góorgu ba kenn ku ne fa nga fa parasant gët yi taxaw ci liggéey bi nga xam ne su bopp nga liggéey ndax lépp sëñ Tuubaa la na ci ñëpp gën jàpp ci ànd ci liggéey bii ndax liggéey bi sëñ Tuubaa la kon fay nekk fenn fu ne jëwriñ ju ne ñu ngi lay sant gën a taxawaat gën a soññewaat jullit yëpp kenn ku ne def saw ñaq ndax kat liggéey bii gën gën a gën ko màgg liggéey Sëriñ Tuubaa gi ci place bi nga jumaa ji nga xam ne gën a bëgg te moom la gën a bëgg kon nag na ci ñëpp gën a taxaw ñu soñwaat bu baax a baax ci mbooleem fédération rek dayr yi wuñ kenn ñëpp rek ñu waxal mooy fédération bépp ñoo ko bokk ànd génn wuñ benn dëkk xet ñoo ko bokk kon ñëpp nañ gën a taxaw ci liggéey ci mu xaadama xet ben nañ koy defee di ko liggéeyal ci ànd ko ci Europe ak fépp Espagne ñoo ngi sant bu baax nañ ci gën a góor góorlu ci mbooleem président day bi kenn ku ne président day bu ne na nga soññ sa sa mbooloo ñu gën a àndaat Moukhaddamatoul Khidma li ñu bëgg kan mooy déere bi ànd ak mboolem déere yëpp ci Espagne ndax benn liggéey benn la ndax léegi sëñ Tuubaa kon a góorgóorlu gën a a feddal gën a àndaat bu baax a baax ne ñëpp gën a soññee noo ngi sant bu baax sëñ Gane Kama mii nga xam ne moom it moo jóge Tenerife kon ñi fi mi ngi nii toog sëñ Mbacke mi ngi toog jóge Valencia sëñ Jili Diop mi ngi nii jóge Valencia sëñ Kam Gane Kama mi ngi di jóge euh, Tenerife sëñ Baye Boy yow mi ngi di jóge Barcelone kon ñi ñoo fi présenté sant mboolem waa Espagne ci déeri yëpp dafa nekk ñoo par présenté kon ñu ngi wax seen tur li sant daal ab soññe la ak gën a góorgóorlu ak gën ce jàppaat ci liggéey bu baax a baax a baax ba mu ànd loole daal ñu ko ba sant baax di ko sant ñëpp jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jox seen jili moom mu mu eggale salaamaaleykum wa mu jëlee la ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu dayratu ci njiitul sëñ Afe Jili Diop moo leen di jël kàddu gi di nuyoo ci turu fédération Espagne ci njiitul sëriñ Mbacke Ndiaye di ñaan itam sëriñ Mountakha yàgg fi suñ kanam lool yàggunoo digal te lépp lu mu digle rek nu mën ca di sant bu baax itam sëriñ Afe mi nga xam ne dañ ñoo booleeg moom mu jiite daayiratul muxaddimaatul xidma te ànd koog mboolem muxaddimaatul xidma bi nekk ci diaspora bi te am ci ñu ci ràññiku lool ku mel ne Serigne Assane Diop ndax bari na fu mu àgg ci Europe foo xam ne ci kàddoom la fa àggee akub tànkam akub soññeem kon faw ñu gën koo soññ gën koo ñaax mu gën a góorgóorlu te soññ mbooloo mépp gannaaw loolu nag dañu fay dikkoon ca gannaaw sëriñ bi woowoon jox noonu joxoonu liggéey digaloon ci teppi jumaa ji wax ne fédération bi nekk Espagne ñoom la jox ndigal ñu yëpp ñu yeesal ko ba defoon nañ ci soññee ba dajoone woon ci menn ndaje ba ci weer wii wii teru tey jii si mois bi ci lañ waroon a daje yaat compléter lépp mu jeex yàlla dogal nag xat-xati jamono am na waaye boo amul woon ba tey kon tëpp yi agsi na Tuubaa yi kon nag fi ñu toll mooy fi ñu toll fu fu ñu jëkk a ubbee rek bu soobee yàlla des na dem jëndi ko incha allah waaye nag ba tey nag ñoo ngi tàll taalibe Serigne Touba yëpp loxo kenn koo xane daal saw ñaq demagu ci woon ak fu ma doon ci adduna bi noo ngi sàkku ci saw ñaq mën a dem rek mu dem ci ndax xam nañ ni que def ci jumaay Serigne tubaa ji yombul ndax mag ñi dañ di ko daa ji jigu fii di yenu ji doj ndokk kon nag nun demuñu woon ndokk waaye nag ndokk bi ñu saa bi ñu yeesloo tëpp yi kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax damay gàttal kàddu yi rek jox sëñ bi mu tëj kàddu yi foofu ndax sëriñ Abdou Ndiaye wax na lépp noo ngi nuyu ñëpp tey sant ñëpp jërëjëf sëriñ Touba sëriñ Mountakha yàlla na yàgg fi sunu kanam. jërëjëf sëriñ Abdou jërëjëf sëriñ Djili Diop ci kàddu yu rafet yooyu jógee ci mbooleem mbokki taalibe yi nekk Espagne ci fédération bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax bu ñu tegee loxol nuyoo bi ak siyaara bi ci loxol sëriñ Assane Diop mu tegal ñu ko ci loxol sëñ Mbàkke Njaay dana ko jotal ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci Espagne ak ci yëpp waaye sëñ Asan tamit dana ko mën a tegal ci ñi ci Afrique ñi ci Amérique ak fu ñu mën nekk ci diaspora bi kàddu yi rafet na pasteefu na kon ñu jàll ci sëriñ Cheikh Dramé mi nga xam ne yàlla dogal na mu teewal fi waa waaye nag yàlla dogal na sëñ bu Bousso mi nga xam ne dafay teew ci jataay bi teewal fi Italie sëriñ Daaru Touré ñoom sëriñ Ibrahima Ndiaye ñoom ñëpp bi sëñ Elimane joxee daan ne sëriñ Cheikh Dramé yaay wax ci turu mboolem ñu nekk Italie kon dañuy jox sëñ Cheikh Dramé kàddu gi bu ko defee mu matal liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, ñu ngi fii tey ci barab bu tedd bi si euh, jumaa ji fekk ci waa daayiratu Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñooy saytu jumaa ji ak li ci bokk yëpp ñu leen di nuyu. te di leen siyaare ci weeru tedd wi nga xam ne mooy sëru Ramadan al Mubarak di leen jot li nuyu boo xam ne mu ngi jógee ci daayira fédération Touba Wénéto ci njiital sëñ Massayer Diané ak sëriñ Cheikh fay ak sëriñ Moussa Diouf ak ñu àndal ñëpp ñu ngi nuyu waa daayira mu xat xidma di si jiital sëñ Afee Bousso mi nga xam ne mooy imaam di njiital daayira bi ak ñu topp si kawam ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaare nee na ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xam ñi ñu koy liggéey si jumaa ji ak li aju jumaa yëpp ak ci weeru koor yi ci waxtaanu diini yi ak ci bend yi ñu leen ñu leen ci sant bu baax di leen gërëm te feskee ne bokk yéen liggéey bi ñu leen nuyu itam ci turu waa itali yëpp itam waaw. sëriñ Daaru Touré ci ci njiital sëriñ Daaru Touré ak sëriñ Ibrahima Ndiaye ak sëriñ inamaan Boussa ak jawriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Italie yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen xamal de ñi ngi seen gannaaw di déglu seen ndigal ak seen xalaat leen xaman ne li ngeen li ngeen joxe woon ci addi ji mu jëm ci liggéey bi yegg ci na jot nañ si waaye ñu ngi koy xeeb bu baax nag te xam naa li ko waral rek mooy xat-xat jamono yi ak mbas mi nga xam moo lëmbee jamono bi ba tax niñ ko bëggoon demeewu ko ndax liggéey yu bari liggéeyatuñ léegi ñu jaay itam jaayatoon kon loolu moo ko waral waaye seen yéene ak seen pasteef weesu na fii ñu ngi gën a soññ di soññ waa Italie yëpp waa daayira Italie yëpp fédération yi yëpp ñi leen soñ ñi gën a góorgóorlu ci liggéey bi ndax liggéey Sëñ Tuubaa rek mooy li am solo kon ñu ngi fas yéene daal di leen déglu yéen waa daayira Moukhaddamatoul Khidma di lépp loo xam ne mooy seen yitte wala seen bëgg-bëgg wala seen xalaat ñi leen déglu waaw te fexe ànd ak yéen ci liggéey bi lii daal mooy li nga xam ne waxoon ne naa leen ko wax xam ne lu si jum si man waaye ñoom lépp lu rafet yëpp waxoon ko kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sàkku seen ñaan ngeen ñaanal leen ndax mbas mi nga xam ne moo limbee si réew mi suñu borom jëlee ko fi mu jeex takk ba kenn ku si nekk dellusiwaat dellu delluwaat sa liggéey ñi liggéey suñu tubaab ni ñu ko bëgg liggéey ñu sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Cheikh Dramé kàddu yi rafet na lool nga ko doon yëkkati daayira Sëriñ Tuubaa ak mbooleem mbooloo yi nekk ci Italie yëpp kàddu yi jot na rafet na danañu yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno mu wax ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma tontu ñi nga xamante ne yéen a woon seen kàddu mu tontu leen di sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno moomu di liggéey liggéey bu rafet ci ni ma ko waxoon léegi sëriñ Assane di liggéey liggéey bu rafet ci diaspora bi kon dañ koy jox kàddu mu yëkkati ay kàddu ngir tontu leen yéen ñi nga xam ne yéen fi ñëwoon doon andi seen addiya ci koor gi waaye soññ ñi nga xamante ne daanañ ko ànd ak ñoom lu jamono jamono jamono jamono ñu seet lu lu mu tollool ñu koy liggéey te xam ne yëf yi wëttalaal suuf kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen dellu di leen ñaanal ci kàddu yi nga xamante ne sëriñ Afiya bu sa imaam yëkkati woon na ko jamono yii doon ñaanal mboolem mbokki taalibe yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew yàlla sunu boroom saafara jàngoor ji nga xam ne wàcc na ci ñoom jàngoro jooju yàlla na ko fi yàlla sunu borom jëlee ba ñëpp delluwaat seen sago te bañ am benn jeexit ci mbokki taalibe yi ñu ngi ñaan yàlla sunu borom mi ko fi andi aar ñu ci musal ñu ci bañ delluwaat suñuy sago daa liggéey dañ bëgg a liggéeyee ci teelub Sëriñ Tuubaa waaye nag jamono lu mu rëb-rëb lu mu jaxasoo jaxasoo Sëriñ Abdul Ahad waxoon na ne mbay mu nangu moo gën tool yi nangu xol bu nangu moo gën mbay mu nangu te xol yi nangul nañ Serigne Touba ku gis ren jii ni muy demee am na ci loo xam ne xam nga ne xol yu nangul Serigne Touba rek moo tax mu demee nii kon dañuy jox Serigne Abdou Lahad Bousso Thierno mu yëkkati du ci tur daayira Moukhaddamatoul Khidma billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu bokk yi ñuy seetaan yëpp di leen ndokkeel ci weer wi di leen balu aq di balu aq di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te ko ak njabo mboolem njabootu Xaadim Rasul di dellusiwaat fii ci jataay bi di nuyu kilifa yi nga xam ne sunuy kilifa yi fi teew jiital ci sëriñ Imam Bousso sëriñ Elimane Bousso di nuyu tamit kilifa yi dayre bi ci njiitul sëriñ Afia Bousso moom mi nga xam ne moo leen dalal léegi waaye ñu nekk ci jataay bi di secrétaire général bi sëriñ Abdoul Ahad Bousso mu talib ak ñi topp ci moom di sëriñ Abdul Ahad Muxtaar ak sëriñ Ablaye Diop ak mbooleem ñi fi nekk ñëpp euh, ci jotaay bi di nuyu sëriñ Abdul Ahad Bousso maam Asta mi doon wax léegi nga xam ne moo jiite commission sociale et relation extérieures gannaaw loolu it ñu ngi nuyu sunu kilifa yu baax yi fi teew jiital ci sëriñ Imam Bousso mu teewal fi E, mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo nekk itali te participer ci liggéey bi mu jiite ñi fi teew e, muy sëriñ Ibrahima Ndiaye xasida online ak e, sëriñ Cheikh ak sëriñ Darou Touré ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen ginnaaw ñoom sëñ Ibrahima Sey Pisaak ñoom ñëpp seen addiyee ji agsi na ak li jamono di xat-xat di nuyu tamit sëriñ Cheikh Darame mi nga xam ne moo fi teebal teewal waa Touba Veneto Touba Veneto tamit di fédération bu am solo ci Italie boo xam ne kenn ku nekk xam na seen digg ak daayira Muxaddamatul Xidma ci ay jëf yu jiitu moo xam machine yi ñu jënd andi ko fi yu jiitu ak machine bu mag bi nga xam ne mooy feet fóot tapis jumaa yi te ñoom ñoo ko jënd muy valeur bu bëree bëree bëri kon ñi ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu Serigne Cheikh Faye ak euh, sëriñ Diané Serigne Massayar Diané ak eh, suñ daam suñ daam loo ñoom ñoo ñëpp ñu leen nuyu te di leen yóbbanti nuyoo mbooloo mi yëpp di nuyu tamit sëriñ Jili jóob ak ñi nga xam ne ñoom la àndal jóge ci fédération Espagne sëñ Jili Diop mi di jëwrin ju mag ci Touba Valencia ñu bari it xam ko ci liggéeyu daayira Matlabul Fawzayni muy daayira bu mag boobu nga xam ne wax dëgg def nañ résultat bu am solo ñoom it ci yoonu murit ba léegi euh, bokk tamit ci jëwriñi fédération Espagne ci mag ñi nga xam ne ñoo ngànk liggéeyu Serigne Touba bi foofu ak ñi mu àndal ñëpp euh, di leen nuyu di leen sant ci liggéey bi ak liggéey weesu yëpp nga xam ne euh, yoon liggéey bi nga xam ne dañ koo bokk te seq ko muy liggéeyub sëriñ Tuubaa boo xam ne du lenn kenn lépp ñëpp la muy jumaa ji ñii tudd ñëpp it ñu taxaw ci taxawaay bu rafet bu am solo ay rawatina waa Espagne nga xam ne ñoom wax dëgg liggéey bi ñoo ci jiitu ci Europe ci seen taxawaay ci ay machine ak ay oto lu nekk koor gi tamit kenn mënu leen ci kon ñoom ñu ngi leen di beral am nuyoo di leen yóbbante nuyoo ci sëriñ Mbacke Ndiaye ak euh, sëriñ Abdou Niang ak sëriñ Adi Touré ak alaaji Abdou Ndiaye mi jiite Canarias ak mbooleem jëwrin yi yëpp moo xam sëñ daam xariloo ñoom la ak euh, sëñ baarandooy ak jëwrin yi nga xam ne ñoo nekk Espagne ñëpp bàyyiwuñ kenn ba ci Portugal ndax liggéey yi day jóge Portugal di jaar foofu daanaka benn ngeen kon mbir moo xam ne kenn ku ne ci ñun sa bopp nga koy defal kon daanaka cant gi jërul sori ndax kuy defal sa bopp duñ la sant waaye nag danañ la soññ lii de ab soññ lay doon ak jotal lay doon ci ñi nga xam ne ñoo jël seenu ñaq jaarale ko ci jëwrin yi mu ñëw ci liggéey bi ñuy xamle ne daal ren ji li muy ni jamono di xat-xat ak li muy lëndëm lëndëm li muy bari ay jafe-jafe teewul taalibe Sëriñ Tuubaa lum néew néew fexe nañ ba seen dara ñëw dugg si ci ndogu yi ak si ci jumaa ji kon ñi ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm tey ñaan suñu boroom mu jeexal mbir yi kenn ku nekk xam na xat-xat yi ñu am ci jamono ba kenn génnul sa kër liggéey waaye teewul sëriñ bi moom xamul kiris ndax ay xol ñoo ko nangul li sëñ Abdoulaye doon wax naan xol yu nangu moo gën mbay mu nangu te loolu moo feeñ ba léegi kon loolu fu taalibe mën a nekk rek mu ngi bàyyi xel fexe ba daraam di di génn kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax bi nga xamee ne lu jamono xat ak lu métti métti suñuy xol moom Serigne Touba lañ ko jox te kenn dara du ci wàññiku loolu tawfeex la kon ñi ngi ci soññee moo xam Italie rawatina Italie ñi ngi soññu waa Italie gépp ndax kenn ku nekk xam na ne foofu taalibe yi bari nañ fa lool boo dee xool sax ñoo ëpp Espagne kon euh, ñi ngi leen di soññu ngir ñu tàbbi ci liggéey boobu bu dee lu aju ci côté baar yi ak li ko wër lépp ba Napoli ba kasarta dëkk yooyu yëpp xam ngeen ne euh, fu peggee la waaye sëñ Ilimane ñuy nekk fa kenn ku nekk xam na ne foofa euh, ñëpp xam nañ ko képp ku bëgg a tàbbi ci liggéey bi ci wet googu boo jokkoo ak moom da nga ci mën a participer bu baax a baax bu dee lu aju ci mbooleem Lombardia bi muy Milan ak li ko wér ba Brescia euh, yooyu yëpp kenn ku nekk xam na ne boo jokkook ak sëñ Touré bu dee lu aju ci Toscana parce que Toscana kenn ku nekk xam na ne raison bu mag la ci Italie maanaam province bu mag la ci itali boo jokkoo ak Ibrahima Sey liggéey bi danga nga ci mën a da nga ci mën a tabbi waa Touba Veneto moom dama leen a jëlale ndax ñoom fédération la boo xam ne tënku nañ ci genn buum kon képp ku bëgg a participer ci liggéey bi boo jokkoo ak jëwrin yooyu muy sëñ Sayar Jaane ñoom da nga mën a participer ci liggéey bi kon ñu ngi leen di soññ daal di leen gën a soññ ndax nañ ne am na ñu fa nekk di liggéey waaye liggéey bi dese na faa waaw bu dee Espagne nag liggéey bi dafa xas tege ci loxol fédération bi kon fédération bi ñoom ñoo yor seen cëggul guy ñoom ñooy soññi daayira yi xam nañ ni ñuy soññi daayira yi xam nañ tamit liggéey bi yàgg nañ cee liggéey kon ñoom it ñu ngi yóbbante euh, sant gi ak soññ gi ci sëriñ Jili Diop mu tegal ñu ko ci loxol sëriñ Mbacke Ndiaye di ñaan tamit liggéey bi nga xam ne moom la leen sëriñ bi jox muy liggéey bu am solo di e, waajal yeesal tappi jumaa ji suñu borom matale ko ñu amee ko nu nu kawe njort barkati xaadim rasul kon daal kàddu yi kàddu yi soññe la ak sant ak ñaan sunu borom tamit jamono ji fi mu toll eh, xam ngeen ne niñ fi ñëwee woon daaw ni ngeen fi ñëwee woon daaw ak ni ngeen ñu fekkoon wuute na ak ren loolu nag yàlla nañ fekke déwén te bu ñuy ñëw déwén fekk mu raw ni mu daa mel te man gi gën a yokk bañ def ci lu kawe njortu li nga xam ne moom lañ def ren barakati xaadim rasul kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp addiye ji nga xam ne moo moo moo ñëw nag ni daa demee nga xam ne Euh, dañ ko daa séddale ay parti ay sociale bi da daa am doole lool sociale bi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma mi ngi ko def te yàgg koo def te moom da koo dëkkee muy lu aju ci ñi fi nekk muy imaam yeeg noddukat yeeg daaray kaamil ak balekat yeeg ñoo ñëpp wax dëgg yàlla lépp loo xam ne lu war la ci lu mën a àgg ci ñoom lépp mi ngi àgg ci ñoom rawatina bu koor ñëwee kon liggéey bi nga xam ne moo jegee Espagne ak Italie ñëw na fekk si socialu daayira bi ñu ñu boole ko nu mën a toll kenn ku nekk la nga ca daa am li nga xam ne moo tolloog li fi ñëw moo xam imaam yi la moo xam noddukat yi la moo xam daaray kaamil moo xam euh, bayaankat yi moo xam daarul maharif ñëpp daal kenn ku nekk li nga ci war a jot jot nga ko loolu it ñu ngi koy seereel jëwriñ yi ndax noonu la daa demee ndax Cheikh Amadou Mountakha moo leen digaloon loolu ne leen na ngeen bàyyi xel matériel bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir barab bi di liggéey muy ñu yor ñu yoral sëriñ bi li ko li ko gën a ñor muy diina ci booba léegi tamit dëkkut kon noonu ngeen ko daa defee lu jamono xat ak li fi ñëw nu mën a toll nañ ko noonu kon loolu it ak sant yàlla bu baax a ba a baax ñu ngi sant bu baax di gërëm di ñaan suñu boroom mu defal ñu tawféex ak taysir barakatu xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf sëñ Abdou Lahad kàddu yi rafet na di sant mboolem ñi fi jël kàddu ci turu waa Espagne ak ci turu waa di sant bu baax mboolem ñi nga xamante ne ñoo àndoon ñoom liggéey bi te nekk foofu ci réew ma ak fu mu fi di doon ak doxin wi ak safoo ak ànd ak daayira Moukhaddamatoul Khidma bi ngeen nekk waxtu wu nekk di ñaanal képp koo xam ne dugal nga ci saw ñaq wala nga am yéene dugal saw ñaq yàlla na la yàlla fay lu kawe sa jort te fulal ko te barkeelal la ko te yombalal la ko boo liggéey nga def ci lu kawe loolu ñi ngi ñaanal mboolem mbokki taalibe yi nekk ci adduna bi rawat na ñi nekk ci diaspora yàlla suñu borom jàmmal leen wéral leen xéewalal leen delloosiwaat leen seen sago saafa leen ci jàngoro yi di leen nuyu bu baax nag delluwaat ci turu sëriñ Afia ni mu koy defee waxtu nekk di ñaanal waa biir réew mi waaye rawatina ak waa bitim réew ñi nga xam ne tukki rek dafa doy coona wax na ak fi jamono toll mi ngi ñaan yàlla sunu borom teg gi yëpp rek ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tàllal loxo mboolem koo xamante ne yaa ngi ci doon def ñi ngi lay soññi nga def di tàllal loxo képp koo xam ne dafa góo ci woon ci daayira Moukhaddamatoul Khidma te xam ne ubbil nañ buntu ñëpp fu waaye nekk lu man di doon boo jokkoo ñun dañ la yombale ba nga liggéey ci daayira Moukhaddamatoul Khidma ndax lépp ñëpp la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh